www.sangatv.com. Si, euh, Monsieur Samba Wagne, ingénieur, ingénieur génie rural, président du mouvement Jadigal Naforé, donc ànd jëriñ sa réew et eh, yow sa yoon nekku ci yow <laughs> nii lañ ma ko bindalee du ma mouvement des lawbe du Sénégal et de la diaspora mouvement bi ñu ngi créé depuis mars 2014 congrès constitutif bi ñu ngi ko tenir woon le 21 mai 2017 grand théâtre national de Dakar donc euh, dañuy def grand sargal au stade Amidou bari de Guédiawaye vendredi 9 février c'est-à-dire vendredi bii di ñëw lañ koy def à 16h donc mu ànd ak Abdou Rass ñu ñëw ci plateau bi pour waxtaanee seen événement bi salaamaaleykum et bienvenue sur le plateau. waaleykum salaam euh, ñu ngi di nuyu di leen ziare euh, di di ci jiital président bi ak yéen ñu fekk ñépp fay nañ la. waxoo ñoo ngi laa fay de tey. ñoo ngi la non ñoo ngi laa fay. <laughs> donc euh, journée bi ngeen di organiser kañ la lu waral ngeen ngeen ngeen organiser ko ak lan moo ci nar a am. waaw euh, journée bi <clears throat> le vendredi 9 muy àjjuma juróom-ñeenti fan ci weeru février bi stade du bari Euh, dafay topp ci luñ mosoon luñ defoon muy congrès buñ defoon congrès constitution national buñ defoon grand théâtre muy euh, mouvement Jadi Gannafoore kon bokk ni nga ko waxee léegi rek mooy ànd jëriñ sa réew en wolof donc c'est communauté lawbe Sénégal bi yëpp la ak diaspora bi donc bi ñu paree congrès bi ñu ne nag léegi dañu war def sargal bu rëy askan wi invité ci aussi autorité yi ak ñi nga xam ne dañoo àndoon yëpp jàppale ji bañ def suñu congrès ba ñu nommé mu président bi ak mu am un bureau national. Mhm. boo xam ne département yëpp ñu ngi ci. ak objectif yi nga xam ne dañ koy viser pour communauté bi à l'image communauté Lébu communauté Naar communauté Yen donc communauté Lawbe aussi organiser wu na pour am loo xam ne lii c'est pour la pérennité. lu la nekk programme bi la neuf. waaw programme bi la neuf moom moo di euh, dugg ci activité yoo xam ne ay activités yu am importance la organisation jigéen ñi. pour création ay jeux yi ñu commencé lancer sensibiliser sur aussi li nga xam ne lii mooy activité lawbe yi notamment pour ay groupement d'intérêt économique yi mais aussi pour l'immigration ak yeneen yoo xam ne yi dana jariñ askan wi yu bëri ay ay thèmes yoo xam ne yaatu na lool euh, waaw alors Abdourass yow yaa ngi ànd ak Samba Wañ di président mouvement euh, ànd jëriñ sa réew euh, lan moo na nekk sa taxawaay ci bés bi ah jërëjëf bi su ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Mouhamad di nuyu Sénégal gépp di nuyu président Youssou Ndour euh, ak ak personnel bi yëpp bàyyiwuma kenn. bon en euh, maa ngi sant bu baax di wax rek man Diadigal euh, Nafoore membre fondateur laa ci. Mhm. parce que ñun ñoo ko fondé depuis 2014. wóor nañu Sénégal gépp bu yàlla dogal def nañu suñu congrès le 9 comme ni ko président Samba ñu waxee ñuy def nag sargal Diadigal Nafoore. man nag ku nekk xam ne porteur de voix laa ma yàlla dogal nag ma nekk ci aar bi te nekk lawbe nekk euh, mbokki lawbe Sénégal yëpp mhm. di wax rek euh, culture bi daanaka maa ko géré man ak Fatou Lawbe woo nañ tamit euh, jeune malo yi nga xamante ni yëpp bu ñu duggee ci aar di doon nekk ay lawbe yàlla ak Abdoura sa tax ak Fatou Lawbe ñooñu nag ñu nit dañoo jël pour maanaam encadrer leen jàppale leen mhm. vraiment ñu wane seen culture culture lawbe bëgg nañ daal euh, bés bu daal euh, Sénégal law bi yëpp bàyyiwuñu kenn nag. Mhm. waaw dañuy law bay jiitu rek mais bàyyiwuñu kenn bëgg nañ ñëpp ñëw. pour mhm. découvrir culture law bi incha allah loolu daal mooy sama taxawaay. ku ku bëgg ñëw participer nu muy demee. waaw non ku bëgg ñëw comme maanaam. genre est-ce que ngay fay est-ce que c'est gratuit. non non non gratuit. waaw dañ ko def d'accord il faut juste nit ki ñëw stade Amadou Barry bu Guédiawaye voilà voilà pour remercier Diadigal Nafoore mhm. waaw di profité tamit di wax ne Fatou Laobé sax waroon na ñëw mhm. euh, mais xam naa dafa xaw a jàpp mhm. waaw mais parrain bi nag ñu ngi koy parrainé Baydi vraiment moom mi ngi nekk Baydi Sey ñu ngi koy woo ci bés bi daal vraiment waaw nekk Guédiawaye waa di woo nag bokk mbokk Laobé yëpp bàyyiwuñu kenn waaw ñoo def fra bi bàyyiwuñu kenn merci beaucoup Abdou Rass donc euh, monsieur Samba Wagne ñu bàyyi la nga joxe mot de la fin rek lan ngay tàggoowee waaw merci bien donc comme ni ko Abdou waxee rek dañoo waroon ànd ak Fatou Laobé jotul ñëw mais moom aussi ci suñu ambassadeur ambassadrice la bokk mhm. donc mouvement bi comme ni mu wax rek moom daal ñëpp la suñu mbokk Laobé yi mais aussi ak suñu mbokk yëpp sénégalais yëpp képp koo xam ne kii rek ñun suñu activité ndax socio économique ku ne xam nañu si ñun mhm. wax dëgg yàlla su ñàkk la ñuy dundee. Mm-hmm. ay góor lañu ay liggéeykat lañu. dëgg la nit ñi loo xam ne lii bon comme je le dis souvent amul lenn loo xam ne lii domaine booy dem te fekkoo ci. Mm-hmm. depuis émigration bi. économie moom dugal nañ suñu wàll ci réew ci réew bi ci économie donc autorités yi ñu jàppale aussi dañ leen di remercier. à mm-hmm. l'occasion di leen ci woo ñoom ñëpp nag comme ni mu ko waxee dañoo jàpp benn parrain muy bëy li nga xam ne ca géejawaay la dëkk nekk fa kilifa muy bëy di ñu pare ne ko bés bi mais ak autorité yëpp na. Mhm. parce que ñun li ñu bëgg mooy état bi xam ne ñun dañuy liggéey pour dimbali suñu réew. Mhm. te liggéey pour dimbali sa réew da nga cay nekk d' abord ku ñëw fekk la ca. dëgg la dañ bëgg aussi mu am pérennité muy loo xam ne dafay continuer économie pour nga liggéey ci da ngay naan yaa ngi yett wala yaa ngi jaay wala yaa ngi ci côté administration. waaye tous les secteurs économiques yi loolu ba yaa ngi ciy yëngatu. Mhm. nous sommes les premiers fii Sénégal ay objet d'art en France en passant par le port de Marseille li ci topp mooy lépp lu ñuy jëriñoo rek ku ne xam ne ne ñun askan loolu ñu ngi ci ku fi nekk nga nekk dans un secteur booy liggéey segment bu ne que ça soit l'agriculture bay bay suñu suñu suñu élément nga utile mooy gopp mm-hmm. même alxuraan bi pour vulgarisation coran bi ñun la à travers les tablettes mooy alluwa yi. alluwa soo demee ci kër yi lu ñuy jëriñoo askan lawbe la. xam xam naa lawbe yi moom li ñuy def yëpp buñ ko naree lim tey duñ fi jógee. waaw moo nag ñu ngi ci domaine yëpp moo tax nag ñu bëgg. ah aussi lié benn partenariat ak ak bi. mais notamment aussi ak TFM mhm. parce que de toute façon boo amee loo war a vulgariser loo war a wone te muy njariñu réew mi il faut nga ànd ak ñu mel ni yéen ak ñeneen mhm. su ko defee ñu bokk liggéey bi mhm. donc dañuy leen di demande un partenariat boo xam ne bii c'est pour l'éternité amul benn problème ñu leen di gërëm di leen sant et nous comptons ci suñu boole nañ leen ak soxna jaar leen nii rek yéen commercial ñu def ñu def ñu def partenariat bi ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw te xam ne bés ba ñun ñoo ko bokk à 4 heures la ñuy tàmbali 16 heures la ñuy tàmbali mm-hmm. ak autorités yi ak suñu partenaires économique yi mm-hmm. ak mboole kem ñi nga xam ne ay kilifa lañ nekk mm-hmm. ñaan tam kilifa diine yi ñu jàpp ci ñaan parce que wax dëgg yàlla bëgg nañ wane suñu contribution ci développement réew mi à travers des activités et puis porteur de revenus. jërëjëf Samba di président mouvement Jadigal Nafoore donc euh, ànd jëriñ sa réew dañ leen di euh, tàggoo rek ak benn clip bu Abdou xam naa ne moon ngeen ko donc ñu koy may suñu benn fans boo xamante ne yeewu leen lay seetaan tout le temps Aïda Ndioum nekk lawbe di leen remercier bu baax ci seen teewaay rappeler nit yi juste que vendredi 9 février à partir de 16h nag na ñëpp teel a dem stade Amadou Barry ngir grand sargal bi nga xamante ne association bi moo koy def merci beaucoup.